gàttandu mbégte noo ngi lay gàttandu ak mbégte mu rëy maag sama bokk yu baax yii jiite mbooloo mi. maag sama bokk yu baax yii jiite mbooloo mi. ñoom muy ñii nga xam ne ñoo bokk liggéey bi bokk sëriñ bi.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 loolu nag tax bi ma seetee sama bopp. loolu nag tax bi ma seetee sama bopp. loolu dafay daal di diis ci man. loolu day daal diis ci man. te foog naa ne. te naa ne. defe woon naa ne. doo doyee dig doomu aadama du jàpp. defe woon naa ne doyee dig doomu aadama du ma jàpp.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 sëriñ bi rek laa laa sëriñ bi rek laa sëriñ teewlu. dénkaat ko sama bopp dénk ko mbirum Macky. mu ne loolu. defe naa ci lu nu weesu. dégg na ko ci man ay yoon. ba ci yoon bi mujjee. ba ci yoon wi mujjee fii. di ubbi si campagne bi.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 lépp nag ngir. lépp day dellu ci lépp day dellu ci sëriñ ndax lépp moom. ndax lépp moom. moo tax ma delloo ko lépp. kon loolu alhamdulilah rabbil alamin. kon loolu alhamdulilah rabbil alamin. sant santoon naa lool. santoon naa lool. waaye ñëw waaye ñëw gii mu ñëw nag. damaa jàpp ne dafa ñëw rek ngir santale si moom.